ci bés bu màgg bi ñuy màggal ca poroxaan war na yee képp kuy jigéen mu gën a góorlu ci jaamu yàlla ak fonk boroom këram jënn jigéen ju tudd Mariama Bousso la ñuy màggal ak sellalam akuk dëggoom ak rafetal ci doomu aadama yi topp ndigalu borom këram nangoo jaamu yàlla moo waral mu am garaatu dëkkaale sunu borom muy jaariyatullaahi kuy jigéen war na roy ci moom